discours bi neex naa wax ndax dangeen ko illustré ba pare ndax da ngeen ko illustré mooy woote par benn pour wan kër gi ni mu bindoo kon discours baa ngoogu yéen waxu leen da ngeen ko wane mooy li ngeen di wax nii pour wane ne kër gi chaîne la maillon la boo xam ne kii day jàpp fii kii jàpp fii kii jàpp fële loolu nag li muy pérenniser ci liggéeyukaay mooy bàyyante xel mooy yërëmante mooy yéenante jàmm mooy lu waay tane moromum dimbalee ko ko ngir yàlla te rafet jikko ndax bés bés la bés bii nag bés la di gërëm bu baax direction générale bi seen taxawaay seen éloquence ak ningeen boote xale yi ndax lii yëpp li ko indi loo xaarul du la fekk loo xaarul du la fi fekk kon lan lay jàngale muñ muñ rekk te bennoo rekk te ànd ci benn yëkkindoo tegandoo man moom lay wax ne leen xale yi ci kër gi suñu ay doom lañu ñun ay doom lañu ñu nekkal ay jarbaat la ñu nekkal kon li ñu war mooy taxawaay taxawaayu boroom kër suñu diggante ak yéen muy ñii nga xam ne dëgg yàlla lewet nanu yaatu nanu ubbeeku nanu réyu nu ñoo xale yi ñooy filtoo ci kër yi bokkul ak kilifa yi nga xam ne boo dajeek ñoom dangay ngay ñu jàll doo ko dem déedéet buñ ko doon def sax duñ ko nangu ñun jaxasoog nit ñi ànd ak nit ñi këru xale la këru ndaw la fii xale yee fii ëpp boo leen génnoon bu ndaw ñi génnoon rek fii wét kon lan lay wax këru avenir la këru avenir la doo yàkkamti doo yàkkamti te dangay jàngaat ci biir ñetti at ngeen wax ñetti at xale yi mën ci am ay ay ay trophée ñetti xale yi di ci jàngaat te ay diplôme parce que démb sax dégg naa yeneen xale yu génn sesti te ñi ngi woon ci liggéey bi di ko def ak ñeneen ñoo xam ne am nañu ay ay ay ay ay ay prix ci yeneen mbir ci ñetti at lan lay wane mooy kër gi am na ginnaaw ginnaaw gi nag lan moo ñu koy may mooy ànd bennoo tey muñalante nag fi xel yem la xel tàmbalee fi xel yem la xel tàmbalee fi sa xel yem nit xelam commencé na foofu dem kon lan la dañuy mottalinte tey nag bés la boo xam ne bii mooy yàllaa ñu ko defal fan la ko jaare ci sunu doom ji Adama man suma doom la suma doom la mësa doom dañuy waxtaan ci lu bari ñu uuf ko yit ci moom la yëpp jaare ci loo xam ne yëgul ña doon def xamuñu leen def naa ay kilifaam sax miinuñu ñooñu lool buñ leen miin yëpp du kon lu waay di def sóoral ne àdduna ñu ngi lay seetaan lii lu muy jàngale mooy ku ne si ñun boo toogee ci anteen bi war nga am loo toogee booy wax war am loo waxee booy liggéey war nga xam nooy liggéey ci qualité Adama sóorul li lu ko bett la lu ko bett la lu ñëw jóge ca Brazzaville ñëw ñu daje foofu wax ko àdduna yëpp tey xam nañu ITV à travers lii jëm ji kon lan mu lay jàngale mooy ñu gën a jàppantewaat nañu gën a liggéey ci qualité te ngeen dimbalinte seen biir te laayante biir te laayante biir directeur fi may daadalee yokk leen ma gi rek yokk yaatal yokk ubbaku yéen ku leen am jël ndax lan tey jii ci presse Sénégal Afrique gisuñu ku leen gën a ku leen ku foo dem seen tur fees na fépp man maay dem ci këru diine yi maa dem ci këru nangam ñi ngeen yaakaar ne nangam boo duggee dañ la daan anu diw barke démb Touba xaw ma woon ne sëñ aboo Baraka xam na la sëñ Abo Xalifa sëñ Fallou bi ma duggee maak alas alsaan ni ah, Mamadou dama koy seetaan moom rek laay seetaan di ñu lim loolu day wane ne euh, defaraatal sa toogaay defaraatal sa bopp defaraatal sa ndàngam moom laay wax Boubacar barke démb di yeesal njaal maa ngi ko naan euh, fii ba déwén dañ lay jaale fii ba déwén rek looloo koy wan nit ñi parce que géej bi day bees ci nit ñi ku ko dégg rek day day renouveler jaar loolu lu ngay def mooy baax sax leen ci moom lañ leen xamee jub moom lañ ñu xamee moom lañ leen xamee sax leen ci yaatal yërëm xale yi jàppale leen xale yi aussi xam ne ki boot di bëre ah da koy waaw kilo la boot di bëre géwél yi xam nañ ko après moom mooy mottali géwél yi dañ koy wax ñoom dina ko mott li moom sàll bi ki la boot di bëre ah ñaanal ko jàmm su daanoo <laughs> yaay gën a métti ndax sa kaw lay tudd yow. ñaari poids mooy kon saa yu leen xëyee ñaanal leen ko jàmm moom mi ne ci boppu kër gi ak ñi mu àndal di ko yéene jàmm di ko xool bëtu jàmm ndax muy am ndam ñuy am ndam. Adama daal ñu ngi lay ndokkeel lii yàlla la jik yàlla na leneen yeneen kii ci kër gi man daal foofu laa koy kiiwee. ustaas yi nag invité wu leen leen samay ustaas maa leen waaw déet damay xuloo ba pare dee leen leen sóoraale nag ndax bëgg naa yi buy amit ñoom it ñu ubbee ko ñaan rek ñaanal ñu ñaan kër gi gën a fés pour ëllëg waaye alhamdulilahi rabil alamin jërë ngeen jëf